Omar Sarr maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar Ndeye Comba. Omar Sarr euh, nga ne coordonnateur de l'association des jeunes de Sandiara bokk aussi ci mouvement euh, nitu dëgg récemment ngeen def benn communiqué boo xam ne yéen a ngi dénoncer euh, situation wu liggéeykat yi nekk foofule ca zone industrielle et agricole ca sanjara lan moo xew foofu exactement. waaw li xew Sandiara mooy. comme ni ko rek suñu maire bi docteur Serigne Gueye Diop depuis son accession au pouvoir dafa inspiré ci plan Sénégal émergent mu créé plan Sandiara émergent daa di daa euh, invité ay investisseurs yu ñëw euh, construire ay usines à Sandiara mais depuis presque dix ans dañoo gis ni nekk nit ci usines yi moom seen situation avancé wul dara dañ leen di surexploité ci usines yi daanaka sax dañ leen di traité foofu comme ay esclavage ñun suñu sànjare yi ñu toog waxtaan suñu biir ñu xam ne lii jaaduwul te ñooy liggéey ci usine yi tamit ñëw si ñun waxtaan ak ñun xamal nañu ne ñu ñoom li ñuy dund dafa métti lool te amul benn assistance si la ñu ni kon il faut que ñu jóg wax ak askan bi wax ak autorité yi ni leen lii liggéeykatu sànjare yi di dund dafa doy. léegi lan la ñuy dund exactement usine boobu euh, si lan la yëngatu. Euh, jeunes yi fa nekk si naka lañ leen di exploiter ak tamit euh, wax nga sax wàllum euh, risques yi nga xam ne ñu ngi koy jël est-ce que mën nga ko expliquer largement Oumar d'accord xam nga am na ci usine bu bu boo xam ay batterie lay defar ay batterie batterie oto lay defar déjà ñi nekk di liggéey dañuy liggéey ci ay risques parce que amuñu EPI équipement protection individuelle amuñu ko duñ leen jox duñ leen jox ay gants duñ leen jox ay chaussures de sécurité dañuy liggéey dans des conditions yoo xam ni dafa metti ba pare dafa bëri ay risques li koy firndeel mooy déjà rek ñun recensé nañ euh, presque euh, di dizaines euh, de travailleurs yoo xamante ni nii dañoo dañoo am foofu ay accident de travail ñenn ñi bettax bi bettax bi nga xam ne dañ koy togg mooy tëb daan ci seen kaw ñu lakk ñenn ñi ay accident yu doy waar lañu lañu fay am te dèjà du am prise en charge sanitaire parce que suñu accidenté ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñooy borom usines yi duñu leen nangoo faj te duñu leen nangoo def suivi médical te ku ci gaañu dem toog sa kër duñu la nangoo fay am na ci ay usines yoo xamante ni nii dañuy lakk ay pono am usines yoo xamante ni dañuy defar aluminium dèjà ñun ñi dëkk Sandiara rek xet bi xet gi yow soo ñëwoon Sandiara xet bi ni mu lay dalee yow dana dina posé wu question ni ñii nan la a def ba fii parce que da ngay sa biir néeg xaj bi dugg sa biir léegi ubbale fa te doo am benn pexe te gis nañ nii euh, li nga xam ne ni mooy RSE responsabilité sociétale d' entreprise nga xam ni entreprise yi samp ci dëkk yi dañ ko war dañ ko war a dig seq diglanteeg waa dëkk ba ñun ay euh, entreprise yi nekk Sandiara ñoom respecté wuñ ko cahier de charge yi taxawal dañ ñu implanté foofu ñun mënuñ ci am accès suñu demee ci mairie bi laajte ko dañ la ko jox dañuy nëbb information yooyu ñu nag il faut ñu jóg wax ak autorités yi wax ak borom usines yi ñu leen ñun dootuñu nangu ñuy exploiter nit ñi ba pare ñun waa Sandiara tamit dootuñu nangu di respirer xet goo xamante ni nii ay feebar kese la ñuy indil et il faut ñu ci solution. Euh, su weesoo peut-être sensibilisation est-ce que am ngeen beneen euh, plan euh, d'action pour rek autorités yi gën a dégg mbir mi mën si taxaw. waaw association bi créé nañ ko déjà ñu ngi def tournée ñu def tournée di gis imam yi ci dëkk bi di gis les dignitaires du village di wër aussi village yi nga xam ne ñoom ñoo wër Sandiara leen xamal li xew ba pare di leen wax ne nag ñëpp àndandoo xàccandoo dóorandoo parce que li ñuy dund nii te lu mënul wéy te lu dul wéy rek dañ koy wutal fu muy yem dèjà nañ leen yëgal yéen ñëpp waa presse bi ni leen incha allah dinañ organiser benn journée bu mag boo xam ne waa Sandiara yëpp dinañ génn taxaw ñaxtu xamal waa àdduna yëpp xamal président bi premier ministre bi ñëpp ne leen ñun waa Sandiara lii la ñuy dund ci usines yi mais aussi lii la ñuy dund ci tool yi parce que am na ay tool yi fa nekk tamit di exploité waa ba nga xamante ni ñu ngi ko di liggéey presque cinq ans six ans ba sept ans te mënoo am contrat de travail mënoo am bulletin de salaire plus de pointage sax duñu la ko bàyyi nga duñu nga ko sooy liggéey si da jékki-jékki rek ñëw wala nga temps de jour nga fi am fay la sa xaalis nga dem donc kon ñun dañoo considéré loolu daanaka dañoo delloo buumu njàmba te ñun waa Sandiara ñun jeune Sandiara dañoo pare pour daggaat buum boobu moo tax ñu constitué ci association moom organiser journée boobu wax ak àdduna bi yëpp après yëpp war a tegu comme plan d'action ko si teg mais li ñu gëm mooy situation bi dinañ ko revenir à la normale entreprise yi installé wu zone industrielle de Sandiara bi dinañ respecter li nga xamante ni mooy code du travail parce que gis nañu ni euh, l'article L5 du code du travail dafa wax ni liggéeykat bu nekk di liggéey ci usine bi am na droit soo ko tegee condition yoo xam ne am na droit ma contester am na droit soo ko bëggee liggéey loolu yenn risques yoo xam ne mën na ci ay gaañu gaañu yu métti am na droit mu ne la lii ak lii ak lii te su boobaa waroo ko ci def benn sanction te ñun gis nañ ni ñooñu di liggéeyee ci entreprise yi ñoom ñëpp seedeel nañ képp ku yëkkati sa kàddu rek jëmale ko si ñoom pour wax leen ni leen lii ngeen ma bëgg a teg ak lii ak lii rek su boobaa dañ lay dàq dañ lay dàq complètement ñu liggéeyee aussi ci usine yi ñun ñëpp affirmé nañ ne dañuy liggéey ñeneen yi sax dañuy liggéey de huit heures à neuf te trois mille cinq cent francs kese lañ leen di fay te kenn du leen fay euh, heure supplémentaire te loolu sur te dañoo bëgg nañu yëpp ñu jógee ci ci liggéeykat léegi Oumar Sarr aussi euh, comment dirais ngeen di lancer appel aux nouvelles autorités maanaam autorité yi bees yi Ousmane Sonko premier ministre président Diomaye par rapport situation wu jeune Sandiara yi. waaw parce que euh, ñuy woo président Diomaye Faye di woo premier ministre Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag dafa am discours boo xam ne moom la jaayoon sénégalais yi. discours nañu fexe ba moomaat suñu bopp loolu la jaayeen sénégalais tey ñoom ñoo yor pouvoir bi dañu leen di wax ne loolu dañoo bëgg ñu appliquer ko te application bi fii la war a commencé ci usine Sandiara yi zone économique spéciale de Sandiara foofu la war a commencé parce que liggéeykat ya fa nekk dañu leen di traité comme ay jaam liggéeykat ya fa nekk dañu leen di surexploité amuñu benn droit te ñun waa Sandiara dañu ne nañu ñëw si ñëw donc suñu xeex boo obtenir gain de parce que dootuñu nangu ñu exploiter suñu rek yi ak suñu mag yi ak suñu tante yi ak suñu bàjjen yi foofu ci usine Oumar Sarr aussi euh, tey ji yow pour yow euh, président Diomaye ban politique la de jeunesse la mën a teg pour téye ndaw yi ci réew mi. waaw loolu am solo la parce que ñun ñëpp d' accord nañ jeunesse mooy mooy ëllëgu réew donc kon politique euh, moom déjà jeune la moom Bassirou Diomaye Faye donc daf na jeunesse bi na leen rassurer na leen jox confiance bu pare nañ jox dayoo bi ñu mérité pour jeunesse mën a toog ci réew bi bañ a di jël gaal yi di dem di dem di étranger donc ñun ci loolu lañ leen parce que su fekkee ni ñu bëgg ñoom nee nañ bëgg nañ réew ñoom souveraineté souveraineté alimentaire a fiyewu pour bëgg nañ nekkaat puissance intellectuelle mën a doxal suñu bopp mën a demal suñu bopp mën a mun suñu bopp te loolu il faut ñu investir ci jeunesse bi pour mën a am loolu kon ñoom nañu xoolaat bu baax a baax a baax taxawaay bi ñuy am ci kanamu jeunesse bi pour jeunesse bi gën am confiance ci réew bi mën a toog ci réew bi liggéey a avancer. Euh, ñu lay laaj aussi en tant que membre bu mouvement nitu dëgg Oumar Sarr naka gisee euh, kàddu yi nga xam ni Cheikh Oumar Diagne yëkkati na ko ne dañu war a tabax ab euh, mosquée ci biir palais de la république noo ko gisee. waaw loolu moom d'accord nañ ci à cent pour cent parce que nit ku nekk fa ngay liggéeyee war am benn espace boo xamante ne nii aussi boo paree sa liggéey foofu nga war a rek waxtu jaamu yàlla jot si jotee foofu nga war a dem jaamu ji yàlla te ñun ñu ngi ci Sénégal réew moo xamante nii pour cent de musulmans. donc kon fépp fu nit di liggéeyee rek war nañ ko jëmmal war nañ ko jëmmal image boobu war nañ ko jëmmal néegu yàlla boobu loolu moom d'accord nañ ci à cent aussi ñun mouvement ni fi dëgg on est un de valeur on est un mouvement boo xam ne dañuy défendre diine kon képp ku yëkkati ay jéego teg pour dooleel diine loolu dañ ànd à cent pour cent mbirum euh, Bah ak Imam Ndao yëkkati woon ay kàddu teg ko ci premier ministre Sonko euh, ñu jugé leen récemment il y a quelques ñuy xaar délibéré bi ni gi ni lundi naka nga mbirum Bah Diakhaté ak Imam Ndao waaw Bah moom mbiram man dama jàpp ni mbiru reewande la rek parce la muy la mu wax noonu daanaka awlul njëriñ réew bi te amul teggin te am solo waaw donc réew tamit kenn du ko kenn du koy gérer si noonu si ku jóg wax lu la neex ku jóg jël kàddu bu la neex sànni ko ku la neex qu'il soit premier ministre wala mu nekk citoyen ordinaire bu képp bépp nit booy waxal rek wax bi war na am teggin war nga xam ni nga koy waxee mais nag par contre Imam Ndao li ñu ko teg man dama koo ñaawlu lool parce que ñun Sénégal ñu nekk réewu diine te te te ma ngeen ni imam mooy première constitution ci diine kon imam Ndao du n'importe comment rek lañu war a jógee rek dem julli ji ab imam daal koy yóbbu ci kaso bi loolu lu ñuy ñaawlu la te du lu rafet ci ci ci kii di Ousmane Sonko boo xam ne nii diine la incarné diine la ñu jaay ba pare moom Ousmane Sonko bokkoon na si ñu taxawoon di défendre imam ba Badara ndaw bañ ko jàppee tëj ko kaso kon tey du mën a war a ñëw nekk la cause bi nga xam ne mooy tëjlu ñu naan ndaw bi nii ci kaso bi loolu rafetul lu ñaaw la. Hmm. mbirum Doro Gueye nag ñu koy euh, topp ci wàllum suuf naka nga gisee mbir mi mu nekk homme d'affaires bu mag a mag jege woon trop nguuru euh, président Macky Sall ak Marème Faye Sall. waaw moom gis nañu ni borom doole yu bëri borom doole yu bëri ak ak businessman yu bëri ñoom dañoo gëm ni xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. ñu si bëri seen alal bi nii lañ ko amee ci injustice lañ ko amee ci teg ay diil euh, ci ci ci làqatu si ginnaaw askan bi di remplir seen ay poches léegi nag am nañ nguur gu bees te ñun jeune Sénégal ñun mouvement ni dëgg li ñuy laaj nguur gi mooy képp ku amoon alal ci réew bi nga amee ko euh, ci ci ndodd askan bi nga amee ko illégalement alal jooju dañ ko war a récupérer ko ci askan bi te justice bi dañ ko war a trancher pour ñëpp amul kii milliardaire la amul kii cent franc la am képp ku def loo xamante ni nii c'est injustice te injustice bi dafa war a dal ci sa kaw loolu c'est bu pour a Gueye mais aussi c'est valable pour yeneen sénégalais yëpp yi nga xamante ni nii ñu ngi nekkoon di lijjanti xaalis illégalement injustement am li ñu am yëpp teguñu ko fenn loolu lépp justice dañ ko war dañu war a rétablir la justice. ñu toll nii euh, ñaari weer la jomaa Diomaye fay président def ci bopp réew mi sénégalais yëpp di xaar dund gi wàññeeku ban appel ngay lancé par rapport ak loolu. waaw wàññi dund gi nag man li ma ci xalaat dëgg-dëgg mooy. ñoom dañoo digge woon loo xam ni tey jii xam nañ mënuñu ko muy Sonko muy Diomaye. li ñu déggoon population sénégalaise ñu dañuy ñun wàññi dund bi ñoom xam nañ ni mënuñu ko parce que ñun ab réew lañ boo xamante ni daanaka li ëpp ci li ñuy dundee dañ koy jënd dañ koy jéggaani day jóge ci beneen réew di ñëw fii d'ailleurs dañ koy jënd parce que ñun amuñu autosuffisance alimentaire maanaam li ñuy bay fii ci suñu réew doyul pour ñu mën ko dundee kon kooku nag mënoo xëy rek ni da ngay wàññi dund gi soo ko waxee da ngay wax pour neexal nit ñi wala da nga leen di wax pour ñu la xam nga ne la nga leen di wax mënoo ko beneen bi mooy Macky Sall bi nga xam ne mooy président bi ci jóge li fi bàyyi ci ay bor dix huit milliards nga xam ne bor la boo xamante ni daf ko bàyyi Sénégal te Sénégal war ko fay ay boobu boobu bu ko doon tey mooy Diomaye ak Sonko mënuñu doon bor bu toll noonu ba pare dañuy wàññi dañuy wàññi dund alors que am nañu ay nit yoo xam ne war nañ leen a rembourser bor bi ñu leen yoreel kon lañu gëm mooy ñoom nañu wax nit ñi dëgg nañu woon waxtaan ñu wax leen carrément li fi xew lan la ñu xamandoo ko ñu xool nan la ñuy def ba ñun ñëpp ànd doon benn say avancé ndoo pour mën a jëli la ñuy tuddee autosuffisance alimentaire maanaam la ñuy béyee ñu mën koo dundee ba nga xam ne dinañu doy sëkk su boobaa dinañ mën a egg si lu lu mel ni Mhm. Euh, kon euh, Oumar Sarr maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. Oumar Sarr may fàttali ni yow yaay coordonnateur bu association des jeunes de Sandiara euh, bokki tamit ci mouvement nitu dëgg ñu ngi lay remercier bu baax a baax.